ويكافئ المزيد والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الهادي الأمين وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة الكرام asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu kullu wa antum bi xeer mbokki jullit yi ñuy seetaan fu ngeen mën a nekk ci àddina bi ci biir réew mi ak yeneen réew yi yëpp ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa di leen ndokkeel bu baax a baax ci korite gi nga xam ne ci la ñu jógee Euh, ñaan yàlla mu nangul ñu weeru koor wi ñu jóge euh, jéggal ñu bakkaar yi jéggal ñu rëcc rëcc yi nga xam ne am na ci bu loolu weesoo di sant bu baax a baax a baax euh, xarit yi soppe yi nga xam ne ñu ngi àndoon ak ñun ci dund saxaaba yi ci weeru koor wi jotuñoo jël lu bari sax parce que xulafa ul arbaa ku nekk ñaari émission la ñu def ci ñoom lañ ca mënoon a teg daanaka mooy bi nu jëlee Seydina Bilal ak Seydina Anas ci la koor gi jeex waaye émission bi moom comme ni mu leen ko waxee rek émission wu képp ku bëgg yonent bi la képp ku bëgg yonent bi rek am nga ci àq euh, kilifa diine yi nga xam ne euh, wax nañook man ne nañ nañ dañu bëgg dund saxaaba yi ñu ne ci ba ci kanam bu ñu ko bàyyi léegi parce que am na ci yoo xam ne ñu bare bari ci nit ñi xamuñu ko woon wax dëgg yàlla waxuma sax ñi jàngul waaye léeg-léeg sunu mbokk jàngkat yi dañuy rafetlu bu baax a baax dañ may woo fu nekk ak ci daara yu wuute yi ak naanuwaay yu wuute yi ñu bare bari nee nañu am na ci yoo xam ne ci ñu ngi koy doog a dégg ci émission bi ci dundu saxaaba yi lu bëri xamee wu ñu ko woon noonu léegi nag mane su fekkee ne ñi jàng nga xam ne ñoom ñooy delluwaay yi ci xam-xam lu bëri ci dundu saxaaba yi ñoom ñoo ko réere kon ñi jàngul moom waxaale wu leen looloo tax bi ñu waxee ay kilifa diine dëgg yàlla seen tour bugguñu sax ñu tudd ko fii waaye ñoom dañu ma wax ne ma dund saxaaba yi nañ ko continuer nee nañu ma naa ko continuer ba ci kanam su may traité yeneen tam ma door koo def wax dëgg yàlla bu fekkee ay kilifa dina wax nañu loolu ak euh, ay boromi xam-xam wax loolu dayol du ma mën a def lu dul nangu ko incha allah xëy na su fekkee diggante fii ak aj gi di ñëw dina am yeneen émission yu ñu si def it ci aj gi rek lay aju parce que tamit jaamu yàlla bu nekk danañ wax nan lañ koy waajalee ak nañ ak nan lañ koy defee bu dul émission yi nga xam ne war na am ci xaj gi léegi lépp ci saxaaba yi lañ koy def nekk ci ba ci kanam kanam incha allah ñu doog a xool nu ñuy def euh, di bëgg bu baax nag di bëgg bu baax a baax a baax a baax ci topp biñ ko doon topp rafetlu bi dégg nga encouragement yi ñaan yi ndimbal yi lépp lépp lépp vraiment gis nañu ko di ñaan yàlla mu nangul ñu nangul leen nangul bépp jullit euh, damay wax toujours rek ne euh, xëy na yàlla moom moo yor ay mbiri boppam moo xam tamit jaamam fan la toll moo xam tamit li nekk ci xol jaam bi moom rek moo ko xam moom moo xam kii li mu fas lan la waaye maa ngi koy seddaloo di leen seddaloo de lii ñuy wax ci dund saxaaba yi jubluwuñu ci lenn lenn lenn lu dul rek suñu cofeel ci yonent bi gën a dëgër lépp lu taq ci yonent bi dañ ko war a bëgg te ñii noo leen gën a xamee rek gën leen a bëgg loolu rek lañ si jublu pour nit ñi xam leen gën leen a sopp parce que xam nañ ne ku leen sopp texe àddina texe àllaaxira amuñu benn sikki sàkk ne ñii ku leen sopp rek di nga dinga dinga dinga nga di nga di nga texe ku leen sopp sa dund yëpp yàlla da koy def barke yàlla da ciy def leer waaw sunu mam si Haj Malick nee na bu fekkee dem nga ba munoo ñàkk a jooy bu dara desul lu dul jooy sa rongoñ di tuuru tuur ko ci jooy saxaaba yonent bi waaw bu dee da ngay jooy wala la nga war a gën a jiital ci jooy yi mooy jooy saxaaba yi loolu wax na ko ci abada buruuq léegi loolu lu wér la Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu rasuul limu ci wax ñun ñëpp gis nañ ko demal nga jàng raaya raaya daanaka mënoo jàng xasida bu ko gën a daw yaram bu ko gën a triste bu ko gën a mën a bu lëgg boo ko jàngee boo bëggoon benn saxaaba yi di nga leen bëgg fukk raaya boobu du ñàkk bés dinañ ci indi fii jàngat ci ay ay mbir ci li nga xam ne wax na ko ci saxaaba yu mag yi donc loolu moo tax rek ma ma ma jëf émission yii nii waaw bi ñuy wax ci yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam Euh, xam naa ne dañu jaayante suñu borom di ko ñaan rek mu may ñu mu nangul ñu ñu bokk si ñi nga xam ne dañuy tax jaamam yi bëgg yonentam waaw suñuy maam yi bay nañ ci waar yu bëree baree bëri xam nga tey bari na tey ku bëgg yonent bi yàlla mu ngi ko jaarale ci alaji bu saaxo waaw ñun dañ daan nekk ay xale yu ndaw dégg li muy wax ci yonent bi loolu ñu bëggu ko léegi ñaata ci ay sénégalais seen bëgg yonent bi yàlla mu ngi ko jaarale ci alaaj bu Saaxo rahimahullah ci gàmm yooyu nga xam ne daanaka li mu ci def mënuñu wax ne nit dootu ko def mais yàlla ubbil na ko ci bunt yoo xam ne kenn xamul nu mu toll donc loolu moo ñu topp loolu moo ñu topp topp ñeneen ñu dul ñun léegi ñu nit suñu warugar mooy flambeau bëgg yonent boobu nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam sunu maam yi jox nañ ñu ko sunu bàyyi jox nañ ñu ko ñun tamit ñu def ko ñu jox ko ñeneen wàll leen ko lumière la boo xam ne boo ko jotee rek da nga koy jàllale kon amuñu si dundu àddina bi lu gën a noble lu gën a am solo ci ñun fexe ba tas bëgg yonent bi ñi ko bëggoon gën ko bëgg ñi ko xamuloon woon xam ko dégg nga maam ñi réere woon ay mbir ci moom nga xamal leen lan la ci yàlla xamal loolu la ñuy ñaan yàlla mu jàppale ñu ci te amul benn werante kemt ni ngay bëggee yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu rek ngay bëggee saxaaba yi noonu ngay bëggee saxaaba yi bëgg saxaaba yi égal bëgg yonent bi bëgg yonent bi égal bëgg saxaaba yi kon loolu loolu rek moo tax ñu jël euh, ñu indi émission yi léeg-léeg tamit ñu ci doxee ñaari tànk benn bi ñu bàyyi xel ñi nga xam ne seen àll wa soreegul ñu wax ak ñoom lu tollook seen niveau yenn saa yi tamit ñi nga xam ne ay boroomu wa leen jàngkat lañ ñu jéem a yëkkati tuuti niveau bi pour ubbi leen ay buntu gëstu euh, loolu la ñuy ñaan yàlla rek mu jàppale ñu sant nag bu baax a baax bu ñu demee ba nga xam ne ay kilifa suñuy wayjur suñuy bàyyi suñuy sëriñ ñoom ñooy taxaw du di bàyyi seen yitte yëpp di topp émission bi dégg nga naan la ñun dañu ciy jàng loolu vraiment encouragement rek la di ñaan yàlla euh, loolu gën a sax ñoom bu ñu juumee ñoom ñoo koy jubbanti dégg nga lépp lu ñu war a wax ñoom ñoo ñu koy wax dinu jàppale lépp lu ñu soxla ci ay document kii loolu yëpp wax dëgg yàlla yombal nañu ñu ko lool lool lool ba jéggi dayo ba jéggi dayo xanaa ka ñun ñooy tayal bañ a gëstu waaye lu ñu soxla ci jumtukaay ay référence euh, yàlla jox nañu ko yàlla jox nañu ko te da du fenn lu dul kilifa yi ñoom ñoo koy jënd jox la ñoom ñoo koy jënd jox la ko yëg ne yow liggéey bii nga soxla soxla nga nangam ak nangam ñu dem jox la ko jox la dañ lay joxe ay keesi téere dañ lay jox xaalis la jëndal téere dañuy dem bitim réew jënd téere boole la ak nit ne ko demal joxal ma ko al amin vraiment waaw man sama samay samay samay soxna dañuy kaas sax dañuy kaas dégg nga ndax téere yu bari ndax <laughs> téere yu bari téere yi ña ngi ca lal ya ña nga fépp dégg nga ci laay fanaan daanaka loolu yëpp ci loolu la ko loolu loolu euh, kilifa yi taxawaay yooyu la ñuy taxaw te ñoom sax bugguñu sax kenn xam ko ne ñoom ñu ngi def lii wala ñu ngi def la leen donc euh, émission bi noonu rek la tëddee ku nekk yaa ngi ciy jàpp ak sa manin ak sa manin wax dëgg yàlla euh, ku nekk xam na ne ndoom doomu daara yi Eh, suñu sañoon seen mbokk yi dañuy am ndam looloo tax suñu mbokki daara yi ñoom ñëpp nag vraiment ci naanuwaay yu wuute yi tarixa yu wuute yi association yu wuute yi ñoom ñëpp ku nekk yaa ngi am xalaat di ko ci dugal di ko ci def incha allah eh, xam naa ne eh, dinaa dina wax sax ne macha allah sama xarit yu baax yi nga xam ne ñoom daanaka seen liggéey yëpp guddeeg guddeeg bëccëg yëpp ku leen xam-xam ne si yonent bi la ñuy liggéeyee ñu ngi def gàmm ci réew mi def gàmm bitim réew boo xoolee événement yi nga xam ne ñu ngi koy organiser euh, ci ci ko weeru koor bi korite gi gis nga ndar xew-xew bu réy boobu nga xam ne xew na fa ci bésu korite gi Chérif ay dara ànd ak sunu frère euh, Tafsir Abdourahman vraiment nga xam ne ñoom macha allah euh, mën nañu wax ne Euh, tey euh, ñu baree bari ñu daan dem ci bésu korité di dem di caaxaan yi di dem di mooy yàlla fexe nañ ba canaliser leen téye leen loolu rek liggéey bu ama am solo la loolu rek liggéey bu ama am solo la ñoom nag ñoom moom émission bii di Al Amine euh, xam nga émission boo xam ne yonent bi lañ ko tuddee dégg nga vraiment fu njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk yow émission bi yow yaa ko moom moo tax surafa yëpp ci biir réew mi ak bitim réew mi ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel rawatina sunu surafa yu nekk fële Casamance macha allah ñu ngi leen di ziar surafa yu nekk ñi nekk Ndar surafa yu nekk ñi nekk fële ne la Jolof surafa yu nekk biir réew mi surafa yu nekk Mbuur fu ñu nekk ci réew mi rek nga xam ne njabootu yonti yàlla Muhammad la sallallahu alayhi wa ñu ngi leen di ziar waaye nag ñun kii nga xam ne moom la ñu si yàlla booleeg muy Chérif Mamine nga xam ne fii la nekk ci kër gi euh, ñu bokk jàngandoo defandoo lu bare bare bare bare ci àddina muy sunu xarit sunu genn wàll dégg nga moom incha allah ak doomu ndeyam genn wàllam léppam tafsir abdourahman ñoom tey tey daa xat rek waaye bu bu xatul woon tey ñoom ñooy toog fii ci émission al amin donc mbokk yi ñu yëgal leen ne ñoom incha allah seen soppe yi ñoom euh, ñi doon wax euh, ne bëggoon ñu ñëw fii ci al amin incha allah euh, lundi bii di ñëw ñoom ñooy nekk ganu émission Al amin bu amul benn gàllankoor ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla def si tawfiq kon soppey tafsir Abdourahmane yi soppey Chérif Mamin yi ci biir réew mi ak biti réew ñoom ñëpp ñu ngi leen di yëgal ne kom ñoom leen di bii di ñëw incha allah ñoom la ñuy dalal fii ci émission Al Amine ñooñu moom bu ñu fi ñëwee ñoom ñoo ko moom léegi rek léegi rek Coupé ak euh, Cheikh Tafsir ñoom ñëpp ñu ngi waajal émission bi parce que ñoom euh, waxuma la ñoom mais seen i soppi ñoo ko bëgg ñoo ko bëgg te émission bi léeg-léeg dañuy toog rek nit ñi nañu suñu sañoon diw na ñëw diw na ñëw diw na ñëw dégg nga ba ñoom it euh, wax dëgg yàlla ñoom waruñu woon xaar sax ñu naan seeni i soppe yeeg nañ ñëw waaye ñoom ñoo moom fii ñoo ko moom fii seen seen béréb la donc kon loolu ñu ngi leen koy yëgal incha allah di ziare bu baax a baax a baax a baax suñu techniciens yi nekk ci kër gi nga xam ne ñoom ñoo nekk di liggéey vraiment sonn lool gudd guddeeg bëccëg ñu ngi sonn pour yëf gën a baax ñu ñaanal leen yàlla yàlla gën leen barkeel gën leen sàmm gën leen dëgëral euh, suñu mbokk borom xam-xam yi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen média yi di liggéey lislaam euh, fu fa waay nekk rek sa moroom nga fa nekkal damay wax toujours ne émission yi moom li ñuy sàkku ci ñëpp rek mooy ñu gën a góor xóotal suñu àlluwa ba li ñuy wax ñu koy teg fu wér wóor loolu moom sas la ku nekk ci ñun bu loolu weesee li ci tegu rek mooy complémentarité waaw style yi mënul nekk benn thème yi mënul nekk benn niveau yi mënul nekk benn waaye dañu fexe ba ñu am complémentarité ci seen biir mottaliwante tey Cheikh Abdoulahi Gaye euh, émission ci yoon ci ci alquran rek alquran alquran rek alquran rek alquran rek alquran rek nga dem ci al amin Dramé ci yontu yàlla Muhammad rek sallallahu alayhi wa sallam dégg nga nga dem ci Maodo fay këru diine yi dégg nga taxawaay yi ñuy am ni ñu gënee gën a gën a gën a liggéey liñ liggéey ci lislaam sët yi nan lañ ko war a jëlee gën koo màggal gën koo gën koo tasaare nga dem fële si sunu mbokk Pape An nga xam ni ku ko xam ci siira rek siira rek siira rek bañ na ko ba émission moom siira la ko tudde dégg nga nga dem ci sunu sunu sëriñ Cheikh Alioune Sall hafizahullah nga xam ne alquran rek ak jamono dégg nga ak xam réew xam aada ju rafet yooyu nga gis ko ci moom nga dem ci imam Ahmed Dam nga fekk foofu al ihsan fekk foofu noonu leeral orienté taw ji fekk foofu noonu mawaqif saarima yoo xam ne bu nit ñi gëlëmee mu ne leen fii la ñu xam fan la ñuy teg seen tànk dégg nga ak raqaaiq yi nga xam ne dina koy joxe ci awliyaullah yi donc loolu complémentarité la nga dem ci beneen émission nga fekk fu fiq nga xam ne lépp loo bëgg ci question fiq demal ci sëñ Haadi sëñ Haadi euh, en tout cas man loolu def naa du man kese waaye ñëpp ñu man ñi ma gis ci borom xam-xam yëpp loolu la ñu wax dañ ne tey bu ñu doon wut mufti ci mazhab bu Malik nga xam ne day def fatwa ci Malikiya kon sëñ sëñ Haadi lay doon macha allah te am na ci beneen souplesse boo xam ne mu ngi ci moom euh, ka Maliki mais day lay gëstu li yeneen mazahib yi wax nga léeg fatwa bi dina la jox aqwaal muxtalifa yoo xam ne ulama yi wax ah lii de la mazhab bi wax boo demee xalli lii la wax waaye diw lii la wax diw lii la wax daw lii la wax ba ci muasiroon yi danaan la lii kat boo demee imam albani lii la wax imam bun baas lii la wax imam qaradawi lii la wax imam oseymin loolu la wax donc yooyu yëpp tey complementarité la c'est-à-dire que ku nekk rek dafa am foo war a dem foo war a kii sunu ulama yi nga xam ne dañ leen di dalal noonu la léeg-léeg nga gis ñoo xamante ni tey euh, tey boo buggee wàllu politique wàllu orientation fii àddina bi toll ñu ne la demal nga seeti docteur Makhtar kebe fu mu jaar rek daanaka lépp day leer naññ naññ naññ naññ naññ naññ naññ vraiment bu fekkee ne daal suñu yéene sell na yi soxla yëpp yàlla jox nañu ko ñun ñoo war a gën a góorgóorlu gën a jàppalante gën a jegewante parce que beru baaxul parce que soo soo beddoo ko rek da ngay def ay erreur yoo xam ne kenn du la mën a corriger mais soo nekkee ci biir mbooloo mi di jokkook sa mbokk yi sa moroomu boroom xam-xam yi ngeen di laayanti biir ku nekk di orienté moroomam ku nekk di jàppale moroomam ñu xam ne kenn xamul fii dara ñun ñëpp xamuñu dara loolu laay faral di wax toujours man su may dégg débat ñu naan kii ak diw ak diw ko ëpp xam-xam ree daf may jàpp parce que man ay caaxaan la pour man ay faux débat la fii kenn xamu fi dara dégg nga euh, sunu sëriñ benn sëriñ bu ñu daan jàngal euh, gaañu na rahimahullah dégg nga nit ku yéeme woon la yéeme woon la ci xam-xam yéeme woon la ci fasaaxa ñu koy wax sëriñ Mansour si Kaolack sëriñ Mansour si xaritu sëriñ Mbaye Abdoul Aziz Dabakh sunu sëriñ la xaritam la woon sëriñ Mansour bu mosaan jógee Kaolack ñëw daanaka daara ji moo koy yor moo koy yor bu ñëwaan sëriñ da ko daan jox daara ji waaw boo ko fekkaan mu daan jàngale maqaamaatul xariiri yi da ngay mel ni ku nekk ci film waaw da mel ni ku nekk ci film yàlla may ko xel mu rëy moo xam ne macha allah may ko pédagogie bu buy waxtaan doo doyal waaw ci moom laa dégg woon mu ne loo xam ne dafa tuuti dégg nga dafa tuuti ba pare ngeen séddoowaat ko kon daanaka dara desu fa waaw parce que sunu borom moo wax ne wa ma utiitum min al ilmi illa qalilan illa qalilan man seen borom yàlla nee na yéen nit ñi joxuma leen ci xam lu dul lu tuuti illa qalilan léegi boobu xalil boobu moom la aalam bi yëpp séddoo aalam bi yëpp ulama yi fi nekk mu fakkiruuna yi falasifa yi dégg nga maam fuqahaa yu usuli yu ne yi na yi dégg nga lugawi yu ne yi ñoom ñëpp ci xalil boobu la ñu am wa maa utitum min la ilmi illa qalilan xalil boobu moom la ñu séddoo ku nekk tuuti nga ci am kon dangay xam lenn rek réeree la ci li ci des kon loolu mooy dëgg ñu xam ne ñun xamuñu dara dañ ci jàng la ñu toll faw ñu ñemee di mottali wante di jege wante ñeme soobu ci yoonu sàkku xam-xam jege borom xam-xam yi jàng du wees loo xam rek am na loo réere al imaamu Shaabi Shaabi ci borom xam-xam yi ummal islamiya am ci la bokk dafa daan wax ne xam-xam ñetti chibre la xam-xam ñetti chibre la fa man adraka chibre al awwal zanna annahu alima kulla shay nee na ñetti chibre la xam-xam nee na chibre bu njëkk bi soo ko jotee nga am lii ci xam-xam da ngay rëy làmmiñ da ngay foog ne xam nga lépp da ngay ñemee dagg santé da ngay ñemee songaate da ngay def lii da ngay tekke ngay tekkeeku daal te chibre rek nga am waaye nee na bu la yàlla dimbalee nga passé chibre bu njëkk bi dem ci chibre saani alima annahu lam yudrik shay'an nee na boo yegee ci chibru ñaareel bi da ngay am yaqin ne xamoo dara te effectivement nooy gën di jàngee rek sa di gën di feeñ en tout cas bu ko nit ñi xamul it yow di nga xam ne yow xamoo dara nee na chibre thalis nag fa hayhata an yudrikahul maru nee na ñetti chibre bi kenn yeggu fa kenn yeggu fa nit ñi kenn ci chibru saani bi lañu am kii am ci tuuti kii kii waaye noonu la yëf yi tëddee li mu bëgg a wax mooy dañuy jàng rek dañuy jàng rek te laltaayee xam-xam bi modeste ak yéene bu rafet nga xam ne doo jàng li suhra doo jàng li kas bi doo jàng dégg nga yu nga xam ne yu xeebeel yooyu dara du tax nga wut ci xam-xam du wut tur du wut daraja du wut siiw du wut alalu àddina da ngay jàng ibadatan lillah da ngay jàng xidmatan lil islam dangay jàng li taarif uyuba nafsika wa kayfa tuslihuha loolu mooy ahdaaful ilm da jàng li tabni baladak da ngay jàng li nga xam ne réer indi na ko fi yëpp nga màbb ko loolu mooy jubluwaayu xam-xam kon sunu mbokk yi ñu xam ne yàlla jox nañu lépp lépp lépp lépp ñun ñoo ci des dégg yenn détails yu fiq yi nga xam ne sax ñu bëree bari dañoo amoon problème mu jàngale ko nee naa leen tey amatu leen ko problème bi détails yu fiq yi nit ñi daan am problème demal tey Cheikh Iran jàngal la ko moom du ci ruus dara da lay koy jaaral ci digg bi mbaa mu wutal la ay mbir tegal la ko di la ko ci nataalal kon ah euh, sëriñu sëriñu <laughs> sëriñu Ndey Ngoone moom Iran lay lay lay déglu ak ak Abdallah waaw ci biir lay jaar donc yooyu yëpp li muy wane mooy tey ku góor góorlu rek mën nga xam mais jàngalekatu diina yi aussi mën nañu xam bu baax a baax a baax a baax tey xam-xam yi gënoon a raar gënoon a manqué nga xam ne réew mi daana ko ñu si euh, soo ñu bëri xóotuñu xóotuwuñu ci woon tey muy xam-xamu xadis tey xoolal tey ni muy tasaaroo waatee ci biir réew mi nga mën a xàmmee xadis yu wér yi ak daif yi ñu am ci ay na ñoo xam ne tey mu'tamadina lañ fil aalam fil aalam fil aalam dégg nga euh, dafa am benn xale bu ma woo di ma wax benn fatwa boo xamante ni daf ko dégg ci benn borom xam-xam ma ne ko attention de kooku fatwaam dafay dëgër parce que dafay dafa xam hadis hadis moom daf koo xam yàlla da ko cee may mu géeju ci macha allah kon bu defee fatwa rek ñaare xëy na yow yaa ci jàngagul mais topp ko rek comme gëstu gëstukat nga toppal. mais bul gaaw kii bul gaaw a jam fatwa bi nel xamoo ko woon léegi toppal gëstu waaye ba mu ko toppee topp ko ndekete yoo la aalim ba wax daf caa fekk ay xadis yoo xamante ne ni maanaam waa ji fatwa bi mu def dafa dëppoog ay xadis donc yooyu yëpp tey mu ngi ci biir réew mi kon mbokk yi loolu rek laa bëggoon a wax fàttali nit ñi ñu gën a góorlu surtout gën a jàppalante gën a mottaliwante réew boo demee ba nga xam ne mën nañu wax ne 60 pour cent ci population bi jànguñu seen diine xamuñu ko dégg nga mënuñu riil mënuñu liir alxuraan mënuñu ko bind réew moomu boroom xam-xam bu fa nekk am nga sas parce que suñu jubluwaay mooy nit ñi xam nit ñi gindee ko incha allah euh, bu fekkee ne euh, ñi seetaan bëgg nañ participer ci émission bi tey moom dañ koy gaaw a ubbi xam naa ñoom Seyda Hafsa ak ñoom euh, sama xarit bële nekk Canaba alaaji Mamor Mbeng ak ñoom xam naa nag bu ngeen duggul tey moom da ngeen di xam ne yéen a yéen ci yéen la waaye tey moom teel naa ubbi kii bi parce que ñoom it léeg ñu bëree bari dañ naan ubbil téléphone bi ubbil téléphone bi nit ñi participer bu téléphone bi déconné daal yéen moom bu ngeen jéemee dugg di ngeen dugg incha allah Euh, kon euh, defe naa numéro yi ñu ngi nii di génn maa ngi ñaan rek képp koo xam ne bëgg nga participer tey nga dugg tey moom waxal lu la neex ci waxal tey moom amaguñu benn thème bu fixe yow tey moom dañuy kii rek jógee ci koor gi di waxtaan nii léegi ku mu neex nag loo xam ne jàpp nga ne dina amal njëriñ jullit ñi wala xalaat boo am ci émission yi yëpp mën nga ko joxe incha allah waaye euh, dama waxoon ne dinaa delluwaat bu ma doon jéem waxtaanaat ci li ma li weesu woon ci xulafaaul arbaa dama ne man de Seydina Aboubacar Siddiq aywa bismillah bismillah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ko kan la. ñett Mboro. ah Ndiaye ana waa Mboro. ñu ko ngi ziare ñu ngi waa Mboro yëpp. Oh, yan nañu yàlla boole sopp yaa rab. woo yàlla may la fan bu gudd ak wér. amin amin yaa rabbi. yàlla may fan bu gudd ak wér. amin amin yaa rabbi. yal na yàlla may fan bu gudd ak wér te yokk sa xam-xam. amin yaa rabbi. yan nañu ko yàlla boole. te dama bëggoon sa numéro téléphone ñu dimbali ma ci. waaw boo boo tuuti rek waa dinañ la jox numéro bi incha waaw numéro bi soxla jërëjëf jërëjëf man dama yàlla may fan gudd te amin amin yaa rabbi yaayu amin amin yaa rabbi bi dama waxoon damay ñëw Dakar ñëwal sama bopp ba bëri ko ñaa jël sa numéro ndeysaan jërëjëf émission dama am na émission yaa ngi def damay xool ci tableau bi ndeysaan a dugg dëgg la dëgg la waaw man waaw boo wootee léegi rek régie jox la numéro bi incha allah. Amadou dimbale leen ko si numéro bi léegi incha allah. incha allah di nuyu waa Mboro yëpp euh, di leen nuyu di leen ziar xam nga Mboro moom. Mboro moom wax dëgg yàlla boo ko tuddee fii ci senegal rek euh, jàngkat yëpp seen xel dina dem ci al alimul allaama rahimahullah Cheikh Alhaji Malick Diop. alxaaji Malick jóob Mboro nga xam ne euh, li mu liggéeyal lislaam néew na ku ko liggéeyal lislaam surtout ci wàllu xam-xam surtout ci wàllu xam-xam mboolem téere xam-xam yi ñuy jàngale fii firi na ko ci wolof bàyyi ko fi laataa moo wuyu ji boroomam moo xam fiq la moo xam siira la moo xam luxa la moo xam-xam yooyu yëpp yëpp yëpp yëpp tey ku ku farlu rek boo ci demee li nga ci bëgg alaaj Malick firil na la ko rahimahullah ñu koy nuyu bu baax a baax di nuyu njabootam yi njabootam yi nga xam ne ñu ngi fi euh, yal na yàlla sàmm leen aar leen bon ndono loolu yàlla yàlla teg ko seen loxo yàlla sàmm ko ba xam-xam bi gën a tas incha allah mbooro tamit fu ñu ko tuddee rek euh, sunu xel day dem ci Maxtaar Sekk Mbooro Maxtaar Sekk Mbooro kooku nga xam ne kaana xakiman waxam yëpp xikma la kon waa Mboro vraiment ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu suñu soppee yu nekk foofu xam nga dama wax ne saxaaba yi ku nekk am nga taxawaay boo xam ne eh, wala wax nga kàddu goo xam ne man moo ma gën a marqué ci yow Seydina Aboubacar Siddiq kàddu gi ñu jàngee ci moom mu yéem ma nga xam ne tey buggoon naa bépp jullit di ko wax mooy li ma gën a ñor ci waxam mooy keroog bi nga xamee ne yontu yàlla Muhammad génn na àddina ñu baree baree baree bare ci qabailul arab murtad génn ci diine ji musaylimatul kazzab nekk fële di woote yonent ak mbooloom kenn xamul nuñ toll ñële ci jullit ñu baree bari na ñoom dootuñu joxe azaka parce que yonent bi lañ ko doon jox jóge na fi dootuñ ko joxe naa abu Aboubacar mi nga xam ne ku ko xam xam ne dafa mën a jooy dafa gaaw a jooy bu daan jàng alxuraan kenn du xam li muy wax ndax jooy yu metti xol bu toj borom yërmande ju bari ja foofu la soppalikoo nekk gaynde mu wax waxam ju réy ja ne a yanqusu diin wa ana xay a yanqusu diin wa ana xayyun ndax diine ji day manqué te abu Aboubacar maa ngi dund loolu du nekk suy manqué moom feneen lay manqué waaye du sama jamono takk xare yi ba ñu bañoon a joxe azaka mu nangoo joxe azaka Musaylimatul Kazzab mi doon woote yonent mu xeex ak moom ñu rey ko ñenn ñu tuub dellu si waat xam nga ci maaraka boobu noonu ci maaraka boobu ci la Wahshi Wahshi Wahshi mi nga xam ne moo rayoon Hamza Seydina Hamza Wahshi yu ma ko rayoon même Wahshi yu boobu ba mu tuubee xam nga sax boo demee ci ashabu rasul téere boobu borom téere ba ma ngay wax ci biir ne Wahshi bi mu tuubee sax yonent bi daf ko doon wax ne ko fexeel bu bu ma la gis maanaam tuub la dugg ci lislaam gi mais yonent bi nee na ko daal fexeel bul nekk fu ma lay gisee dal nekk ci gannaaw gi yooyu tellement que li Wahshi yi defoon dafa métti woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bi yonent bi génnee àddina Wahshi yi moomu moom ci bopp moo rey Musaylimatul Kazzab dégg nga daan na ko wax ne man maa rey Seydou Shuhada nga xam ne Shuhada yëpp moo ci gën maa ko rey waaye tamit maa rey ki gën a bon ci nit ñi mooy mu musaylimatul kazzab gannaaw bu mu tuubee loolu yëpp ci jamono Seydina Aboubacar Siddiq xurub bu ridda am mu xeex ak ñoom ñu nangoo joxe azaka lépp mu tegaat ko ci yoon ci lu matul ñaari at mu génn àddina kon tey képp koo xam ne ab jullit nga waxu abu Aboubacar boobu xool ci yow lan moo ci sa wàll a yanqusu diin wa ana xay tey ngànnaay amul kenn du jël ngànnaay di ko xeexee mais nga défendre diine ji aar ko lan nga ci def lan mooy sa taxawaay daañu la ko laaj bismillah asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulilah xaw ñoo sonn ci liggéey waaye yàlla def na dugg nañu ah tey moom ñemewu leen ma wax dara moom ah waaw ah, kay yàlla moom tarkalla yal na yàlla nangu ziar kontaan nañ Seyda. wallaay du waaye ndok bi seen wàll yéen a ko moom. wallaay ak euh, joxe bopp bi nga xam ne daanaka macha allah jox na ko bopp borom xam-xam ni dëgg ak euh, liggéey bu rafet bi nga xam ni ñu koy def ci baax a baax. Mhm. Euh, bi xam-xam yi fi tudd yëpp man man ma xam-xam borom nga ma cee mën a toolee waaye nag alhamdulilah amul problème bi ci des mooy maa ngi nuyu ñoom Abdallah ak ñoom Tafsir ak Chérif kontaan nañ ci bu baax ñu ngi leen di xaar. dëgg la wax nañ émission bi rek la mu Sylla émission bi mën naa ne saa bu ma ko bu ma ko seetaanee ba pare. Mm. dañu fëggaat téere yi. ndeysaan nga xam dañ koy dencoon nit dañ koy génnewaat. dëgg la daal di beesal suñu cafeel ci yéen ci yar Muhammad. alayhi salaatu wa mm-hmm. yokk ci suñu xam-xam. Mm-hmm. Eh, ba gën a bëgg tam eh, saxaabatul kiram. ndeysaan fi may eh, mooy. Mm-hmm. ci ki nga tudd léegi góor gu baax googu ngay wax léegi nga xam mooy Aboubacar Siddiq. waaw. nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon képp ku ma lebal rek fay naa la. ndeysaan. waaw. dëgg la ku ma lebal rek fay naa la ba mu des Abubakar. est-ce que. mu ne moom daal yàlla rek laay bàyyi mu fayal ma ko yomal xiyaam. est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que ñu saxaaba yi toogee ñuy laaj kenn ku ci nekk lan nga gën a bëgg. ndeysaan lan nga gën a bëgg. waaw moom bi ñu ko laajee dafa ne an nazaru ila wajhi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. alayhi salaatu wa salaam mu ne man man la ma gën a neex rek. ndeysaan saa bu ma xëyee rek di jàkkaarloo ak kanam yéen ci yàlla Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. est-ce que ñaareel bi mu ne. Hmm. wa infaqu maali ala rasulillah. alayhi salaatu wa salaam mu ne eh, mooy jël sama alal di ko jox yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. dëgg la xam nga xam nga boo xoolee Umar bun Xattaab mhm. eh, taxawaay boobu la gisoon ci Abubakar Siddiq mu ne mu ne mu ne man daa seetu naa saa bu yonent bi wootee da ngay gis ne Aboubacar mooy moo moo lay gañu mu mu mu mu ne Aboubacar dama gañu bii yoon Omar am ko sa temps de jële sa temps de dégg nga waaw bu soobee yàlla jële sa temps bul yàkkamti waxal li nga bëgg wax yëpp incha allah wax waxal lu la neex tey tey waxal rek yow xam nga xam nga bi bi loolu amee. Ah. Omar ibn Khattab ne tey jii dinaa dinaa defante ak Aboubacar Siddiq sa réseau tamit. Mhm. waaye e, bi yonent bi ne ku nekk na nga def ci yoonu yàlla. Mhm. Omar dem këram. Mhm. daal di xaaj alalam daal di koy indi. ñu ko indi yem ci yàlla bi ni ko Omar loo bàyyil sa kër mu ne ko xaaj bu mel ni laa leen bal lu mel ni laa laa leen bàyyil sa kër ah yonent bi sallallahu alayhi wa saxaaba yaa ngi toog Omar jàpp na ni tey moom mooy raw Abu Bakr Siddiq mhm. waaye sama góor ga suñu so suñu soppe bi suñu xarit xam ni macha allah xolu jullit boo tijjeet da nga am doom boo xam da nga koy tuddee Aboubacar Siddiq ndax taxawaayam ci yéen ci yàlla Muhammad moom bi mu demee mhm. waaye mu dër këram mhm. dafa buub lépp lépp lépp daal di indi jóor ko ci kanam yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne ko ah waaw Aboubacar mhm. loo bàyyi sa waa kër mu ne leen li ma leen bàyyil mooy li ma dig ak li ma yàlla dig loolu laa bàyyil sama waa kër Omar bi mu gisee action bi dafa taxaw mu ne wallahi laa asbiquhu ila shay'in abada. ndeysaan mu ne maa ngi gën ci yàlla. Mhm. dootuma rawante ak Abu Bakr Siddiq ci dara. ndeysaan ndeysaan kon ñooñu la yonent bi doon wax naan. Mhm. sama saxaaba yi comme comme kan mu juum. waaw moom dañoo mel ni ah ci ah, diw nu mu tasa nu mu tasee ci kaw ci kaw ci kaw asamaan si rafet bu njëkk a génn rek danga naan moo gën a leer ba ca def waaye su beneen leer ak daal di suñu ba ca def nga xam ne kenn ku ci nekk rek jiit ñi woon boo xam ne mën ngaa leeral adduna kon li ma gën a neex ci émission bi mhm. mooy dund biñ fiy dund yonent yàlla Muhammad sallallahu si wa sallam waaye di ci dund xam-xam Mm-hmm. waaye di ci gën a bëgg saxaabatul kiraam yi nga xam ne. Mm-hmm. ah suñu maam yi comme ni nga ko waxee woon ñoom ku ci nekk rek boo tuddee yonent bi da nga cee tax saxaabatul kiraam. Mm-hmm. suñu maam Ahmad Bamba dégg nga lu mu wax. waaw lan lan la wax ci raay yéen <laughs> très bien xam nga dafay tagg yonent bi ba mu yàgg ci raay ah, ah. di ko tagg di ko tagg ba mu yàgg mu mel ne ku tuur na joxoñ bopp. naan ayaa xaadimal muxtaar laa tansa saxbahu mm. waaw xëy na dinañ muxtaar. nee hmm. nañ sa sax ba hmm. waaw mais fa man yoon saxu fan madu ko madu ko luqat. ndeysaan dugg ci Abu Bakr Siddiq di Siddiq wal Wafa ba ci Omar nga gis ne mi ngi naan yow xëy na dinañ muxtaar. ne kuy waxaat ak boppam. Hmm. daan bul fàtte saxaabaam ja. waaw ñoom ku leen fàtte. dafa dafa mel da ngay togg sa ceeb ba pare. waaye xoromoo ko. ndeysaan xam nga dafay lewet. waaw kon yaakaar naa ni suñu mayu tam. gisuñu gannaaw ci saxaabatul kiram est ce que xam nga keroog suñu maam bi muy dem ci géej loolu doon wax. Ah. mu ne rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi. Hmm. xam nga lu mu ca teg. Hmm. mu ne wa asxaabuhu fil bahri kii na aduur. allahu akbar. allahu akbar mu ne man bi may bi ma jëlee fii gi di mu yóbbu. Hmm. xam nga kan laa àndal. ñu ne ko mu lay téere yàlla bi ak wal Mustafa nabi. est-ce que ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam nga kan bi. waaw. mu ne wa asxaabuhu ak ay saxaabaam ñu ne ko fan mu ne fil baxri état bi nga xam ni xëy na adur ñu ngi wërale ci géej gi pour bëgg maa sànq man xaadimal Mustafa ñooñu laa àndaloon. est-ce que kon yéen kon suñu mag ñi sax. suñu mhm. tegoon saxaaba yi beneen affaire la woon. est-ce que foofu laa yemale waxtaan wi. allahu akbar euh, di la jaajëfal di la ñaanal yàlla yàlla. Euh, gën a kawel ci mission bi. ndeysaan ndeysaan ndax ñun moom rek la ñu am. ndeysaan yéen ci rek lañ bëgg ak ay saxaabaam ak suñu maam yi. ak yéen ñi nga xam ne yéen ñuy jàngal séeréer yéen ci yàlla Muhammad. alayhi salaatu wa salaam sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. di la jaajëfal baax a baax. jërëjëf jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. jërëjëf jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu ah tey de dugub bi moom kontaan naa ci trop Euh, Seyda Hafsa Fall nekk fële ci seen TV euh, di def émission diine yu am solo yooyu euh, gis nga ko jigéen ñi ñoom léegi dañuy dañ koy jaayante góor ñi ñoom daal ñoom ñoom parité bi dañ ko bëgg dugal ci diine ji léegi <laughs> ñoom fi mu nekk ustaas yu yu góor yi la ñuy diiranteeg mbagg dégg nga nee na nee na ni ñuy woowee gars yi nañ ko kawee parce que ëpp ñu ko xam-xam macha allah lii nga fi wax moom. wax dëgg yàlla ku amul xam-xam du ko wax wax yàlla ku amul xam du ko wax di bëgg lool lool lool lool di wax ne tamit yow moom royukaay nga si képp koo xam ne jigéen nga rek royukaay nga parce que yitte bi nga def ci xam-xam ak yitte bi nga def ci alquran ba jàng ko ñëw sanc sa daara loolu ku amul yitte du ko def vraiment maa ngi lay sant bu baax ci jokkoo bi waaye sa sa jigéen bële aussi xam nga yow ku la tudd day tudd Zeynab moom tamit fële ci eh, rajo rajo télé dunia yi ak rajo dunia yi émission yi nga xam ne mu ngi koy def foofu di ko fa amal émission yu ama am solo la vraiment mu nga xam ne vraiment jigéen ñi aussi jàmbaar lañu eh, xam naa ne su ma doon tudd ustaas du jeex waaye xel day day kii rek waaye ñoom ñëpp li ñuy def lu ama am solo la eh, ñaan yàlla mu gën ñu jàppale gën ñoo dooleel Euh, Seyda li mu wax nag euh, am na solo lool lool lool euh, ci loolu lay continuer rek li ma doon wax mooy Seydina Aboubacar Siddiq wax jooju mu waxoon yan yanqusu diin wa ana xayyi ndax diine day wàññeeku day am dara luy wàññeeku ci diine te fekk man maa ngi dund loolu moom képp kuy kilifa diine rek war nga koo wax tey waroo nangu mukk mukk mukk mukk diine di di di souffrir diine di néew doole fekk yow yaa ngi dund loolu warul am warul am waaw kon jàngaat dund Seydina Aboubacar Siddiq baax na ci ñëpp waaye kilifa yi nga xam ne ñooy jiite ñoom ñoo ci war a gën a jiitu tey bismillah aleykum salaam wa rahmatullah kooku Cheikh Ahmed Tidiane Niane Kaolack waaw Kaolack euh, la yaa ngi sama dëkk ba tey. <laughs> alhamdulilah man de Oustaz bi am neex lool trop trop sax. ndeysaan euh, wax dëgg yàlla émission diine yi ngay def. dëgg la. macha allah macha allah daal di la ñaanal yàlla daal. Ah. di ndax man dama kontaan si fan la suuf waaw soxna soxna Xafsa Fall. waaw waaw waaw soxna soxna xam sax ndax Sénégal léegi dafa xaw a tumuraanke dëgg la dëgg la dëgg la rek damay waxtaan ak sama ak sama man ko nekk Dakar Kër Moussa di jaay dama doon waxtaan ak xale jigéen mhm. boo xam ne jullit la doomu jullit la du mokkal xam nga te loolu bëri na bëri na trop trop trop Sénégal jigéen mokkal mënut a tari Faatiha waaw ah bëri na ci góor ñi aussi ah Cheikh Ahmed Tidiane góor ñi Faatiha góor ñi ko mënul tari bëri na de waaw xam nga waaw moom moo tax xam nga góor ñi ko moo tamit mais tamit su ma gisee jigéen boo xamante ni mu dugg di wax ay xadis. waaw dugg di nekk na ay texte euh, ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. alayhi salaatu wa salaam di ko nekk ci Sidi Aboubacar xam nga loolu man dama cee sama xol dama seet. dëgg la dëgg la ñu. maanaam gis naa sa sa sa taxawaay ak sa dama lay gis boo émission nga sol costume daf may neex trop ndax dama jàpp ne ndongo daara yi <laughs> doomu daara yi maanaam trois pièces la ñu war a sol. wala ah mais mais costume yi nag costume yi moom costume yi dañ ma koo aaye Cheikh. non non da nga ko man nag dama dama ci kontaan su ma gisee nga sol ko damay damay feer ndax léegi damay gis da nga sol. Ah, waaw waaw wax di di di wax français. waaw di wax di wax di wax di wax di wax ci diine ji daf may neex trop quoi. waaw xam ne maanaam euh, maanaam jàng. jàng xam-xam jàng jàng sariya taxut taxut nga nga nekk benn waay bu yaafus. waaw taxut nga nekk koo xamante ni doo intelligent taxut nga nekk koo xam ne doo xam dara ko dëgg la moo tax man yow wax dëgg yàlla yow ak euh, Oustaz Dame liñ euh, ñaan ñoom ñu ma ñu ma nawloo ngeen ñu ma nawloo ngeen ñu ma nawloo trop trop. jërëjëf jërëjëf ñu la yàlla daal du ñaanal tamit doo TV. kii Aliou ci Ndiaye ñu tudd. Alaaji Ndiaye gis nañ taxawaayam. ci ci réew mi ak ñu fonkee diini ji. dëgg la waaw ñun moom ñun waa Kaolack moom wax dëgg yàlla bu ñu amee am ay programme ak ay gàmm yooyu noonu dëgg ci bi laa njëkk a gis. ndeysaan mu dem Nigéria. Mhm. teg teg teg gàmmu Nigéria gi teg gàmmu Medina Baye. dëgg la ba pare def ay micro micro territoire la ciy gis sa bopp daaw. ndeysaan moo tax daal dañu leen ñaanal yàlla bu baax a baax di ñaanal waa dëgg ci bi yëpp. jërëjëf jërëjëf alhamdulilah jërëjëf Cheikh Ahmed Tidiane jërëjëf Cheikh Ahmed Tidiane si kaddu yu kaddu rafet yooyu nga wax ah, kontaan nañu bu baax di nuyu waa Kaolack suñu waa dëkk boobu waa Kaolack moom ñëpp lañuy nuyu waaye rawatina nag waa Ndargu Ndaw ak waa Betuwaar fen ñooñu moom ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax waaye ñu ngi nuyu waa Kaolack yëpp di nuyu Serigne bismillah di nuyu sëriñ Saïd Dramé suñu mag Euh, ak waa daara ji yëpp di nuyu tamit waa euh, ngaan waa kër imam Alioune Badara Ndaw nga xam ne euh, daara ju jooju nga xam ne ñu bëree baree baree bëri ñu ngi fay mokkale alxuraan lu ma juróomi téeméeri nit mokkale nañ alxuraan ci daara jooju tey yàlla def mu nekk ci natt bi mu nekk ñu ngi ñaan yàlla rek natt moom day dal jullit ñaan yàlla mu génnee ko ci natt bi mu génnee ko ci natt bi man loolu rek laay wax Euh, ñan yàlla mu génne ko ci nattu bi loolu lay ñaan di wax jullit yëpp nañu ko ñaanal ak bépp jullit bu ne ci nattu yàlla génne la ci bismillah bismillah aleykum salaam wa rahmatullah kan la waaw ndar ngay woote non Ross Béthio ah bismillah waaw ñu bu baax a baax waaw yal na yàlla nangu ziar defal di la ñaan yal na yàlla yokk saw fan. allahuma amiin yaa rab. defal la tawfiq ak tawfiq. amiin yaa rabbi. di rafetlu émission bi yow di ñaanal aussi borom kër gi. amiin amiin yaa rabbi. ba lépp lu mu namm ci lislaam yal na ko yàlla jàppandil. amiin amiin yaa rabbi. liggéey bi rafet na wax dëgg yàlla. jërëjëf xel mi sell ñu leen di sant bu wér a jërëjëf jërëjëf. bu baax a baax. barakallahu fiikum. waaw su ma su ma su ma xoolee sedd na. ndeysaan jërëjëf. jërëjëf jërëjëf merci beaucoup. jërëjëf di nuyu waa Ross Béthio waa Ndar yëpp nag. ak waa la ko wër ak lépp ba muri Mauritanie macha allah foofu moom suñuy xarit suñuy soppi dong dong fa nekk eh, kontaan nañu bu baax. Euh, li ma doon wax léegi ma ne imaam Alioune Badara Ndaw daaraam jooju nga xam ne ña fay mokkale alxuraan kenn xamul nu mu toll. Euh, te dégg naa dafa am genn kilifa diine gu daan wax ne moom nit daal bu xasee mokkal alxuraan xamatul defoom rawatina nag koo xam ne macha allah aalimun mujahidun murabbin dégg nga vraiment mbooleem awsaaf nabila yi rek hada al imam yattasifu biha lakin allahu yabtali al mumin huwa fi l moo tax euh, ana adullah an an an an an an yafukka asrahu wa an yauda ila ahlihi saliman inchaa allah wa yuwaasilu masiratahu at-taalimiya wa tarbawiya inchaa allah nattu la rek nattu la du leneen amut leneen leneen amu fa lu dul natt nattu boobu nag yàlla na ko yàlla jeexal yàlla day nattu jullit almumin yubu talaa almumin yubu talaa sunu maam yu baax yëpp gannaaw ya avant yàlla di leen jox li mu leen jox dañoo jaar ci ay natt wa qad suila li imaami lil imaami shafii rahimahullah yowman qila lahu ya imam hal yu hal yumakkanu li rajul qabla an yubtala qala la la budda min al ibtila qabla tamkin al ibtilau qabla tamkin hada al imanu mubtalan hada al imamu mubtalan huwa min alsalihin wa naxsibuhu min awliyaillah ñu ngi ñaan yàlla yal na ko yàlla delloo ji këram ci jàmm ak salaam yàlla jeexal natt bi natt boo gis am na fu mu jeex léeg-léeg mu yàgg léeg-léeg mu gàtt waaye ñu ngi ñaan yàlla nag mu delloo jàmm kon waa Saalum yéen ñëpp ñu ngi ñaan yàlla rek ñun ñëpp ñu ñaan rek ñaan lañu am de amuñu leneen lu dul ñaan ñaan yàlla sunu doom jooju sunu kilifa googu nga xam ne natt bi ci kawam la dal bu dalee ci kawam dal na ci kaw julli yëpp na ci kaw Saalum yëpp dal na ci ko képp kuy wax laa ilaha illa allah muhammad rasulullah lakin hada ibtilaun min allah ah Seydi Haj Malik daan na wax ne wa raddini bilqada rabbi musabbirani ala balaika ya rahmanu ya allahu raddini yàlla yàlla na loo def ma may gërëm bil qada dogal boo mën ma ma gërëm rabbi musabbirani yal na nga ma may may muñaakoon ala balaika mboolem ibtilaat yi ngay indi muy dal jaam bi bu dalee sama kaw yal na ma yàlla may ma muñ ko ahyaanan yàlla dina la nattu ci sa ci jëmm nattu la ci sa njaboot léeg-léeg yàlla nattu la ci nattoo la kaso yàlla nattoo la difficulté yooyu yëpp tey foofu rek la imam bi nekk waaye ku dégg jaar-jaar yi xew-xew yi yëpp boo amoon ci moom benn yaakaar da nga koy yokk fukk xam ne macha allah hada aalimun muslimun hada aalimun rabbaani hada insaanun xaadimun li baladihi wa xaadimun li diinihi wa xaadimun li ifriqiya wallahi sharaf sharaf kabir ku mel ni bokk ci suñu réew macha allah ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla jeexal nattu bi euh, kon su ko defee Seydina Aboubacar kàddum googu moom lay fàttali kilifa yëpp di ko fàttali jullit yëpp a yanqusu diin wa ana xayyu ndax diine day wàññeeku di manqué fekk man maa ngi dund loolu ku nekk na ko bind tey jàpp ko ay yanqusu diin wa ana xayyi nga xool yow lan nga def pour diine beneen bi Seydina Omar ibnul Xataab bu fekkonte am na kaddu gu may jàpp ci moom di ñaan kilifa yi ñuy jiite yëpp ñu ñu déglu ko mooy wax jëmu waxoon ne law asarat baglatun fi l iraq sa'alani lam tuslih laha tariqa ya omar mu ne benn bax la bu fakkastalu woon fii ca ca ca Irak man mi nekk Madina yilif ko man la ko yàlla di laaj maanaam nga takk saret di dem rek saret bi yoon wi baaxul mu fas wi fakkastalu wala mbaam mi fakkastalu wala nag wi fakkastalu nee na moom la ko yàlla di laaj léegi képp koo xam ne danga yor responsabilité ibtidaan min raisil jumhuriya tàmbale ko ci président de la république de premier ministre ak ministre yëpp ak député yëpp ak directeur directeur société yi ak yor loo xam ne askan yëpp ko bokk jëlal waxu Seydina Omar ji nga bàyyi ko xel lépp bépp responsabilité boo yor ñi nga yilif ñëpp yow leen yàlla di laaj ëllëg loolu képp kuy duggee kuy politique di bàyyi xel li détails yu bëri doo ci dugg doo ci dugg law asarat baxlatun fi l iraq la sa'alani allahu lima lam tuslih laha at-tariqa ya Umar wa hakada dundu politiciens yi mën nañ jàng lu bare bare bare ci dundu Seydina Omar surtout leeral jaar yoon jubal loolu laa ci jàpp beneen bi wax ji mu waxoon nga xam ne euh, firi nañ ko ci làkki àddina bi yëpp di ko wax ne wax ju mel ni mësuñu gis wax ji ko mel mooy wax ja mu wax ne mata staabadtumu nnaasa wa qad waladathum ummahatuhum ahraaran keroog bi nga xamee ne doomu amr ibnul aas mu ngi rawanteeg doomu koptu bi ci égypte ba mu ko rawee mu jël yar bi dóor ko doomu néew ju doole jooju di naqarlu denc naqar woowu ba ñëw madina tawat ko seydna omar seydna omar convoqué omar ibnul aas ak doomam ji dooroon doomu baa doole bi bi mu ñëwee mu ne ko futteekul fayul mu dóor ko ba pare mu ne am ibn al-As bi nga xam ne moom la defoon gouverneur ci Misra mu ne ko summeekul tey sa doom bu amee fit di jalgati c'est parce que poste bi nga yor a tax wax ko ne ko dóoral dóoral waxuma ki la dóor kese de mais ki nga xam ne post bi mu yor moo tax doomam am fit di la dóor da nga koy dóor baa doole bi ne ko moom dóoruma nag man su may fay ci ki ma dóoroon laay fay te ki ma dóor fayu naa ci moom Seydina Omar fa la waxee wax jëne mata staabattumu naasa wa qad waladathum ummahatuhum ahraara pourquoi ngeen bëgg a jël nit ñi di leen def jaam te kenn judduwul nekk jaam ku juddu gor nga ku nekk njaam rek ak njaam dalaa dab te def nit jaam mu ngi tàmbalee ci nga koy xañ ay xàqam nit ku lay xañ sa droit xamal ne commencé na laa def njaam boo ko yëgee boo ko yëgul kon nit ñi nañ leen jox seeni xàq jox leen seeni droit démb maa ngi ciy waxtaan ak sama xarit bi Alaaji Mamor Mbeng ci Canaba ñuy wax ñuy wax eh, ci ma koy wax lii di ko ko fàttali mu ne ma lii de ñëpp war nañ ko dégg sëñ mamoor maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu waa Canaba Canaba Canaba ndeysaan ñëpp ñëpp sunu dëkk la Canaba moom bu nu limee rek juum waaye di nuyu nag suñu waa kër wayjur Cheikh Alioune Guèye xafisahullahu rahimahullahu taala rahmatan waasiatan waa daarul arqam imaam Mouhamed Gueye ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji ñëpp ñu ngi leen di nuyu ah kon loolu lu ama am solo la tey nit loo ko yilif yilif loo ko ëpp ëpp ëpp doole bul jalgati ci ay xàqam am na ñoo xam ne tey bu seen wayjur yore yenn post yi mbaa ñu yor yenn alal yi mbaa ñu yor yenn daraja yi foog nañ ne lu leen neex def leen dañuy jalgati di reewantalu di tëb fii di dal ñooñu vraiment ay nit lañ yoo xam ne euh, bu ñu amee sañ-sañ yooyu rek li seen bàyyi yor moo tax waaye ñoom bu dul loolu tekki wuñu léegi nag ñooñu ci la Seydina Omar waxee woon wax jii nii kon kilifa sa njaboot da ngay fexe ñu yaru tegu ci yoon du ñu jalgati ñi nga xam ne yaa leen yilif bu ñu ko defee rek ëllëg yaa ngi leen di commencé def jaam te def dem def nit jaam mu ngi commencé nga koy xaj ay xàqam loolu lu jar a bàyyi xel Seydina Ousmane bu ma doon jàpp ci moom tey lenn lu ma war a baaxee jullit ñi lenn rek lay doon mooy bi nga xamee ne xawaari ji ñëw nañ encercler ko fas yéene rey ko nga xam ne mën naa wax jullit yëpp tey Seydina Ali ñëw Seydina Xasan ñëw ahlu bayti rasul ñëw saxaaba yu mag yëpp ñëw jël ngànnaay nar a jaamaarloog ñooñu mu ne leen bàyyi leen la teg leen ngànnaay benn deret du tuuru ci diggante jullit yi fekk man maay sabab bi du fi amee dem leen ngeen toog seen kër képp koo xam ne maay sa kilifa tegal ngànnaay demal nga toog sa kër gis nga bu leen joxoon ndigal dañuy xeex rek julli di rayante rek mu ne nag benn deret du toq deret du tuuru te moom mooy sabab bi parce que boobu te seetal mag moo xam ne am na quatre-vingt-trois ans ñu mujj ray ko kon jullit yi léeg-léeg umma bi dina toll foo xam ne dangay ngay sacrifier say droit say xàq da ngay da ngay def tanazul an baad xuquqika li masalih almuslimin li xiqni dima almuslimin wa li sawni aradihim Seydina Ousmane loolu la moog ñoom moog ñoom ba ñu ñëw fekk ko muy jàng alquran ñu rendi ko rendi ko deret ji fekk ba deret ji di yor ci aaya bi fa sa yakfikahum allahu wa huwa samiul alim bi ma defee émission ci moom suñu benn wëllëre sama xarit Abdoul Aziz Mbaye dafa jox sama numéro benn wëllëre ku ñuy wax Cheikh Zaki yi mu ne ma dem naa ba gis kaamil boobu euh, naa Ousmane doon jàngee ba fi deret ji doon yool wan nañ ma ko mu nga nekk fa la ci réewu Tasxandi fa la kaamil ba nekk gis naa ko gis fi mu yol ba ci aaya bi kon jullit yi waxuma sax tuur deret mais des fois jamono dina toll foo xam ne umma bi tollu fa ci doye moytul rek lu yokk fitna di jógee ci yow muñal defal jéggaleel jëllaleel pour rek julli di nekkaat benn pour julli di amaat doole waaw bu laajee yow sax nga joxe sa deret pour julli di noppalu yow joxeel sa deret mais bul nangu ñu tur benn deret moo tax jullit yi nga xam ne dañu toll ci difficulté di jëfandikoo mu poussé leen ñu jëfandikoo violence ne ñu dellusiwaat du régler problème bi du régler benn problème liñ leen di digal mooy ngeen jege borom xam-xam yi déglu leen ñu wax leen li ngeen di def jamono jii jamono jël ngànnaay ci turu diine actuellement suñu réew yu laaju ko li mu laaj mooy jàng ñu def jihaat ci xam-xam ñu def jihaat ci mbaax ñu def jihaat ci liggéey ñu def jihaat ci yar suñu bopp ñu def jihaat ci tas sunna si yonent bi ñu def jihaat ngànnaay ci lislaam jihaatu ngànnaay état dong dong dong moo am sañ-sañ décrété ko loolu dafa war a leer ci bopp yi tey bu Sénégal bu doon jihaat kenn amul droit déclarer jihaat du sëriñu murit du sëriñu tijaan du sëriñu xaadir kenn moo am droit ne dañuy jihaat moom moo am moom moo am sañ-sañ boobu moom la ko yàlla jox moom la ko lislaam jox mooy président de la république foofu kese la ñuy jëfandikoo ngànnaay fu dul loolu nag xiwaar la jihad bil ilm jahidum bil quran dégg nga uhjuhum défendre l'islam bindal tontul debaal loolu la contexte bi waaye loolu yëpp nag du ngeen ko mën a xam lu dul da ngeen jege dem nangoo gàpparu ci suufu borom xam-xam yi ñu jàngal leen orienté leen Seydina Ali ibn Abi Talib Seydina Ali na Abi Talib su fekkoon am na lenn lu may jàpp ci moom ci liweesu mooy ba ñu bëggee takfiir génnee xawaarij yi ci ci biir diine ji mu ne leen mukk fi kenn du fi takk takfir nit dégg nga mu ne leen xawaari yi jël ngànnaay di ma song di xeex ak man ñu ngi koy def mais du ñu yéeféer hum ixwaanuna bagaw alayna ñoom de suñuy mbokk lañ yoo xam ne dañoo jalgati ci suñu kaw dégg nga leen ba pare xeexak ak ñoom loolu daw yaram la ba ñaari kaay bu dee amaan bu ñu reyee Seydina Ali day boole ñëpp jullee leen suul leen xam nga loolu fitna mënu ko weesu waaye lu fitna bii rëy rëy ba ñaari kuréel yi jël ngànnaay ñemewu la wax nanguwul mukk mukk mukk mukk kenn takfir ab julli tey nag li gën a yomb la julli yi tànn mooy takfirante ak shaytana ku nekk yaa ngi def shaytana sa moroom di diaboliser sa morom boo wuuteeg nit mënoo ko convaincre nga tuumaal ko ne dub jullit pas-pasam baaxul naa fekk la et pourtant am ngeen espace bu yaatoo yaatu pour deba da ngeen di da ngeen di jaamaarloo créer ay débat ay plateau ku nekk toog wax li nga wax fan nga ko teg li nga gëm fan nga ko teg loolu mooy dëgg mais tayala tayala tayala tayala tànn ba tànn lu gën a yomb di jël ay tuuma di teg di sos di fen di kàcc pour rek bëgg am ndam te yow wér na la wér yàlla ne li ngay wax da ngay kàcc bëgg rek ñu ne yaa am dëgg loolu amul loolu amul amul amul njëriñ kon Seydina Ali maîtrise ba mu amoon ak jàppal ngànt bi mu daan jàppal ngant ñi mu ñi mu wuuteel tey julli di soxlawaat nañ ko tey julli di soxlawaat nañ ko tey dama ne kenn yeggul ci wuutee fa fa ñooñu yeggoon ak Seydina Ali kon nañu waxtaan ci suñu biir jàppalante ngant def débat ñeme débat ñeme débat ñeme xam-xam haatu burhanakum in kuntum sadiqin te bàyyi alphase naabiye yi saagawante bi tuumaalante bi day wane rek suñu tuuti ak suñu doyati yal nañu yàlla jàppale jàppale leen kon xam naa tey loolu rek la ñu buggoon indi saafuwante ak mbokk yi euh, comme ni ma leen ko waxee lundi bii di ñëw nag incha allah ni ngeen fi xaar seen xarit seen soppe Chérif Mamine Haydara wa axuhu rafiquhu rafiqu darbi cheikh tafsir Abdourahmane Gaye ñoo moom émission bi di ñëw di al amin di leen sant di leen gërëm lakum minni alxubb wa duaa dawman wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu